10,2 Les cas positifs sont répartis comme suit. 109 cas contacts suivis par nos services, 15 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao 4, Guédiawaye 2, Pikine 1, Maris 1, Yembel 1, Grand Yoff et Touba 76 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et guéris. 18 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4640 cas ont été déclarés positifs, dont 2885 guéris, 52 décédés et donc 1702 sous traitement. le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. asalaamaaleykum askan wi mu ngi leen di jottali fi nga xamante ne suñu dëkk Sénégal ci la toll ci mbas mi ñuy wax Covid 19 ci junni ak ñaar téeméer ak juróomi test yi nga xamante ne def nañu ko. téeméer ak ñaar fukk ak ñaar dellusi nañu ànd ak doomu jàngoor yi ci yooyu téeméer ak juróom-ñeent moom lañuy wax contact maanaam mooy yi nga xamante ne suñu service yi bérébu liggéeykaay yi ñu ngi leen di topp te di leen di saytu fukk ak juróom nag am nañ ko tey ci cas communautaire ñu ngi tëdd ci diwaan yi mbaaw am na 4 géejawaay am na 2 ma dellusiwaat si olof mbaaw am na ñeent géejawaay am na ñaar Pikine am na benn Maris am na benn Yëmbal am na benn Grand Yoff am na benn Jëppal am na benn Yaraax am na benn yooyu ma lim nag ñoom ñëpp ñu ngi fii ci diwaanu Ndakaaru fële sa Ziguinchor am ñu benn ca Touba am nañu ñaar juróom-ñaar fukk ak juróom-benn am nañ ko tey ci ñi nga xamante ne bi ñu leen saytoo gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu am nañu nag fukk ak juróom-ñetti cas grave mooy ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci bërëbu sawetaas yi maanaam mooy service réanimation ñeneen malade yi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital seen yaram mu ngi ànd ak tan 2 mars ba léegi ñu fàttali ne bi euh, at mi amee ñaari fan ci mois de mars ba léegi nga xam ne mbas mi ci la dugg fii ci Sénégal ci suñu dëkk ñu ngi toll si ñeenti junni ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukki cas yoo xamante ne ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñaari junni ak juróom-ñetti ak juróom-ñetti fukk ak juróom wër nañu gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji juróom fukk ak ñaar làkk nañu mooy génn nañu àddina ñi nga xamante tey ñoo toog ñu leen di faj ñu ngi tollu ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi doolee dooleeti di ñaax askan wi ngir ñu topp tegtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee mbas mii ñuy wax Covid 19 dina génn ci suñu dëkk Sénégal mu ngi leen di gërëm leen di sant wasalaam.